Le Premier ministre Ousmane Sonko demandait un rapport financier détaillé mm-hmm. euh, d'investissement qui porte sur environ 60 milliards. Mm-hmm. Tenez 60 milliards de 60 francs. Donc on lui envoie dans les meilleurs délais le rapport détaillé euh, sur, les, états, les états financiers détaillés. Mm-hmm. Donc peut-être tu connais Bobou, euh, nous convaincre, je dis bien, bien peut-être, mais dans les jours à venir, euh, mais il n'a pas dû être satisfait euh, par la nouvelle gestion de l'ONAS. Euh, voilà donc Motar nous euh, mu jugé utile nous remplacer à la tête de cette institution parce que l'équipe de boo a temps ou tergiversé donc il faut aller vite donc su fait que tout le monde n'est pas au même rythme on change d'équipe pour avancer lool rek la c'est c'est tout à fait normal mais bett askan bi ci àddu naan euh, dafa tel dafa teel alors que moom àddu woon na ne leen euh, ku doxalul dama lay jëlee foofu indi la indi keneen koo xam ne na doxal. non affaire bi du teel parce que euh, xam nga quand tu as des obligations de résultat. quand le résultat n'est pas au rendez-vous il faut en tirer les conséquences. d'accord. parce que on dit il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mhm. wala ñu ni mieux vaut tard que jamais mais c'est un peu plus tôt donc euh, euh, lu vraiment da ngay fexe mu dox ont parce que liñ ci focus à l'état financier il mu demandé publiquement donc euh, parce que c'était sur le terrain donc ça veut dire qu'il y a une question de gestion derrière certainement Mhm. donc là, nag du lu ñuy sooxaale. lu avancer quoi su fekkee ni dafa am des problèmes de gestion je crois que bon il faut régler ça et avancer donc euh, te je euh, mën na pas si yem ci limogeage mais ci ci auditer parce que il était chargé d'auditer la gestion de son prédécesseur aussi là où ça tardait à se faire parce que le gouvernement bi dafa bëgg a clair. Hmm. dans la nouvelle gouvernance parce que sommes en Fait que Mamour Diallo moo fa avant lui keneen a fa con. Et ils se sont passés des marchés de plusieurs milliards depuis boobu ba 700 milliards ci inondation te dafa am en rapport ak moom. waaw léegi yow nga ñëw foofu. Mhm. ñun la nga def état des lieux. mais on a on ils ont ils ont eu 4 mois quand même. d'accord pour faire l'état des lieux je crois que c'était suffisant. Mhm. Mm. am na solo alors ñu dem may may ñu vidéo ñu ñëwaat faram fàcce. da nga xamoon ni dafay jeex ndax soxorante bi wala nan nga ko gisee woon baax ko. <coughs> xamoon naa ni xeexante bi dans ci biir. ak bi Amadou Ba nekké candidat clan yi forbé won ku nekk diko gëna xex opposition bi li ci échec la jëm c'est clair légui nak bu jéxé jeex na jeex ko te la xamal ben affaire am na renouvellement de la classe politique bu am bo xamni ne cey ñii bala ñoo bala ñoo bala ñoo bala ñoo jotaat ci nguur gi ñan ci hmm c'est terminé renouveler xam nga Sonko Diomaye dañu renouveler les générations politiques en au Sénégal xeex bi yëpp ça se fera entre ñoom ak ñiñ bokkal génération. jeex tak tàkk gasi mais kon ay ñoom Idrissa Seck bokkatuñu. non non, kenn waxatu ko. Khalifa Sall bokkatul. kenn waxatu ko. Amadou Ba bokkatul. non Amadou Ba c'est différent. Amadou Ba c'est différent Amadou Ba 34 le pays. Amadou Ba c'est différent mais ñeneen ñi ay 1 0,1 pour cent représentativité génération politique guñ Macky Sall kenn ben rescapé la am képp dog muy Amadou Ba. mais est-ce que loolu li ngay. wax mais l'avenir non non non li ngay wax ni dang ko tek ci lu objectif wala dang ko tek ci li ñuy wax sa diggante ak Amadou Ba. ci xam nga xam nga fan la ko tek waaw tous les restes de paire Amadou Ba boo koy jël.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

Oui, mais ce qui est important li mu wax euh, renouvellement de la classe politique que euh, rek suis d'accord avec moi. Mm. mais il faut vraiment, ne vraiment waxu boppam parce que ce n'est ni la Bible ni le Coran euh, renouvellement de la classe politique comment c'est am parce que ce qui est sûr je ay APR ak ay taxaw parti classique ont ci suuf je crois que je nañ ko fi léegi ce qui est vrai moi, APR ku ci mer euh, ci Amadou Ba lay dem s'il dit que Amadou Ba mooy récolter tous les restes de l'APR mais Amadou Ba kese moo fi soxla les restes de l'APR mais les restes de l'APR fan la ñu dem hmm. fudul ci Amadou Ba mënuñ ñëw Pastef mënuñ ñëw dans des cadres yo xamné lu bess lañu bëgg parce que ñom ñoo nek comptable de ce que nous décrions li ñu metti tay donc ñom ñoo fi def lu ne mauvaise gestion démocratie de répression on a tué des des centaines de gosses on a emprisonné des milliers d'opposants donc nous, ñooñu mais ci seen ñoom rek il y a une partie je crois que ah ñun une Vision sur je crois que Pastef aussi sur leen je crois a une formation politique yi nga une formation émergente C'est c'est reste de paire là donc à mon na quand il dit que à part Sonko et il y a que Amadou bon là il rêve un peu parce que on sait que même il roule pour Amadou Ba a une ci émission et ak euh, Maïmouna Ndour Fay. mais Monsieur, na ni Amadou Ba war na bañ a mën en fait parce que da koo limité nee na ñi frustré wu yëpp ci moom la ñuy dem mais peut-être euh, li nga xamante ne mooy. Euh, non nee na il faudra compter avec Amadou Ba au contraire parce que il tient 34 euh, pour cent. xaw ma te da ciy dolli ñi frustré ci ci ci APR moom foofu la waxee. ça ak ñi war a frustré ci Pastef. bon Pastef waxu ko mais <laughs> APR la wax. Pastef ku mhm. frustré ci Pastef xanaa du dem ci APR. loolu la wax c'est hein. pas des vases communicants Pastef <laughs> APR. Mhm. non non non. léegi man tey jii. Mhm. su ma nekkoon ci formation politique su ma nekkoon ci Pastef ma am fa lu ma naqari mais du APR lay dem. néna ci Amadou Ba la wax. mais ben la rek. Mhm. mburu fof ko farine ben la rek. Mhm. donc euh, c'est c'est c'est c'est la c'est le même régime mais Amadou Ba mo fi won jeune, yi ci rapport Covid 19 yi nan len ay 1 mille euh, rek lañu ñu matul milliards. wala da faté lolu dafa woo société civile bi di len convaincre ni li ñu sàcc c'est c'est 7 milliards sur 1000, donc ça représente moins de 1%. donc lañu ñu mu jàll quelqu'un qui tient un discours comme ça man est-ce que tu m'as laay mais le moo tax sax ñuy confirmer ni Amadou Ba la kii la kii te c'est bokkoon ci régime bi passé. te des comptes war émission Yérim voilà toujours il met Amadou Ba au cœur de sa communication. Mhm. il roule pour Amadou Ba c'est de la communication politique c'est du marketing politique qu'il fait à Amadou Ba. et il le faisait. à Amadou Ba pour Macky Sall aussi. man defoon naa une vidéo hein ci 313 digital ne bu connaître une élection présidentielle yi dañ limité limiter parcelle de gagner hmm. parcelle de gagner buñ ko doon limiter ci unité parcelle 26 unités, unité la unité hmm. du gagner buñ ko limiter ci centre de vote am du gagner léegi nag buñ ko nee gagner ce bureau de vote gagner nga Sénégal sax du gagner kon lu tax am 34 34 c'est pas Amadou c'est l'appareil APR boo xam ni dafa clientèle politique mm-hmm. dafa am ñoo xam ne dañu ay contrat milliards et milliards ak ay marchés. am y a des dañu qui séddoo ay terrain yi terrain gis ngeen aéroport beeg mbuurkat beeg li xew ci Sénégal yépp mm-hmm. foncier agricole bi tamit non. Euh, donc intérêt yooyu luubi boobu mais ñoom dañuy mobiliser seen nit ba noppi dañoo des ay milliards et milliards et milliards ñom bitéy bu Senelec ak euh Amadou ndjay Rahma ak kaolax euh, Kaolack wa waa Tiwaawoon euh, partout dañu gagné ay milliards pour imposer wu loolu expliqué expliquer 34 bobu et la part de fraude dans le nord donc loolu euh, parti sortant bu mmh. euh 35 sax nga de crédit donc moom il a un point même en moins cette coalition là Benno au-delà de l'appel parce que l'appel dafa amone ay alliés aussi ci élection yi y a ay opposition yo xamné ay pseudo opposition yo xamné dañu dem rallier euh, Benno Bokk pour présidentiel yi Amadou Ba ñu bari dañu pour ay khalis xam mais moi-même on m'a proposé de soutenir Amadou ils ont approché tout le monde donc ñom non 34 moins cent mhm. moyen moo ko may ak Yakar. parce que ñu bari dañu yakaron ne dañuy forcer force ci élection yi tok ñu bari dañu yakaron ne au pouvoir depuis les périodes de candidature ce avait dit.

s'il faut ñu rey 90% des sénégalais ça, sax. 90% hmm. rey des sénégalais mais nous ko teg loxo de yoon def hmm. mais bon, bi ñu la laajaatee daf ni tamit mus ko wax. donc moi, je ni ce n'est ni la Bible ni le Coran donc waxam la quoi mais il faut pas nous nous nekk ces échos quand il fait de la promotion pour un homme politique de la PR, xam ni déjà qu'il y a un problème parce que gis que Mansour Faye ni ko contesté. Il am le na livre Amourouba. mais livre bi yoonu Amadou Ba nekku ci ci yonante bi alayhi salaatu wa salaam. parce que dafa promettre woon day def deuxième partie bi mu bindaloon Macky Sall. mais oh. nee na dafa changé bind Seydina Mohamed parce que Charlie Hebdo moo ko poussé moo ko merloo mu xalaataat histoire yonante bi. moom yéex na mer de depuis Charlie Hebdo ba léegi mu ngi doog a mer. bon mieux vaut tard que jamais léegi euh, euh, nu mu tuddati euh, mais wiiri wiiri nañu ba dugal Amadou Ba ci débat bi. politiquement mu mujjee

ci la Gold wala ci Orange wala ci fenen lolou luy ñëw la tout le temps gaay non lañuy placer sen ay actifs donc ñooñu sen sen doole du jeex en fait day yok sax avec le temps. ñu tek ko ci yoon. je euh, pense non yoon bi mooy mooy reddition des comptes. mais on parle politiquement. Mhm. donc nous, ils auront toujours leurs moyens. Maintenant, on est face à une opposition boo vraiment bu ñu doxaloon yoon rek mais bonus bu rëy la waroon ci démocratie Sénégal parce que tey je parle politique je parle pas de politique politicienne tey APR a 12 ans d'expérience de gestion des affaires publiques comme même au niveau de la Banque mondiale sax faut ñuy négocier financement avec eux xam nañu sax dans quel bureau à quel étage nous négocier tel et tel dossier. pour dem groupe consultatif de Paris ou le club de Paris xam nañu fu ñuy jaar xam nañu montage projet xam nañu état nu muy doxé xam nañu ñuy loi de finance xam nañu nu ñuy defee lepp lépp lépp loo doxal parce que dañoo gouverner. une opposition comme ça à l'Assemblée nationale devrait être une opposition de qualité. D'accord et non nous indi ay borom musóor yo xamni ay saaga lañ fay def ak ay plutôt que ñu peser sur la qualité du débat parlementaire hmm. PDS a ñu également une année de gestion du pouvoir 12 ans Nous tamit mën contribuer au débat démocratique euh, le PS et ce qu'il en reste nous ay eu yoyu ans de gestion du pouvoir donc nous avons une contribution de qualité en tant qu'élément de l'opposition mm-hmm. Mais -hmm. mais si on la débat politique c'est des débats de personnes nous on nous parle de on ne parle pas d'un projet d'opposition on nous parle d'un individu qui est maquillé dañ politique Mais mais une contribution politique d'opposition bu ñuy teg ci table bi pour wax ni fii ñu jëm yoon bi mo gën fii ñu jëm li baxul parce que li parce que li parce que li mais on entend un leader de l'opposition faire un live sur le sac sac à main d'une première dame loolu ban opposition la. bu ne 3 millions lay sac à main. <laughs> hein oui. mais mais c'est dommage. carence d'argument le quoi. c'est c'est très dommage le débat le débat politique. mais mais en tout cas on attend de voir vraiment et on le souhaite vivement nous avons une opposition de qualité boo xam Il au moins un régulateur ou bien un watchdog quelqu'un qui dira attention on n'est pas d'accord donc mais c'est dommage mais ce que wax nag c'est mooy li am ils vont passer à la trappe et ils sont à la trappe Quand ma conscient ou pas Amrouba il va dépenser ces milliards comme il l'a dépensé présidentiellement mais du am lu fi Macky Sall amul du am lu fi APR hmm. c'est impossible ils vont inexorablement vers le bas hmm. et dina am euh, une autre euh, un autre renouvellement du personnel politique hmm. qui n'est pas que